promotion ba nga xam ne nag ñu ngi koy daal di def jagleel ko ki nga xam ni moo di Bougane Gueye Dany nekk njiital boobule groupe de presse di nekk candidat ci élection présidentielle yi 2024 boobule courrier sax nag daf ko daal di def jagle ko rajo boobee di Zik FM ak bile télé di Sen TV ak seen quotidien boobee nekk rek le tribune ca émission ya nga xam ne nag dañ koy daal di amal la jëm si élection présidentielle yu février deux mille vingt quatre mu mel ni sax nag ñoom ñoo dañuy def promotion bu ki nga xam ne nag moo bu Bougane Gueye dani ba tax rek waa CNRA di préciser ñi nga xam ne ñoo di personnel bi euh, maanaam journaliste chroniqueur wala sax animateur ak li nga xam ne moo di les supports du groupe en général muy rajo bi wala sax télévision bi seen ay émission yu bari ya nga xam ni nag dañ koy faral di def mu mel ni ñooñee dañuy violer rek li nga xam ne moo di les textes qui les registre bokk na ci rek numéro téléphone ya nga xam ni wala sax ay correspondant ya nga xam ne nag dañ koy daal di joxe pour rek bëgg parrainer ki nga xam ne moo ngi Bougane 2024 wante it faisant intervenir un membre de la Fast Force de Bougane Gueye Dany teg ci it di fexe rek ba auditeurs yi wala sax téléspectateurs yi di soutenir coalition boobee nag di gëm sa bopp yemuñu ca loola it di diffuser wala sax di rediffuser yenn ci ay émissions de manière def rek promotion bu ki nga xam ni moo di gaan Gueye Dany ak ay public reportage jagleek ki nga xam ni moo di Bougane Gueye Dany nekk njiital bi léegi groupe tax rek muy préciser que ni yooyu les pratiques dafay mel ni rek une violation manifeste des cahiers de charge ci rajo yi ak télévision privée yi ba tax rek muy xam ne nag nga xam ne nag moo daal di moom bële bërëb nag dafa daal di wax a li nga xam ne nag moo di honnêteté ak clarté ak li nga xam ne moo di mu daal di équilibré yooyu les information nga xam dañ koy faral di joxe foofu wante di exiger ñu daal di respecter li nga xam ne moo nag ces principes s'appliquent à l'ensemble des émissions au service concédé yooyu émission sax nag ñu ko fay diffuser dañ ko daal di war réaliser ci ay conditions ya nga xam ne dafay daal di garantir l'indépendance de l'information notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires wala sax yenn ci ay dirigeants yi vis-à-vis li nga xam ne nag moo di groupement économique wala sax yenn ci ay courant politique muy journaliste ya nga xam ne dañuy daal di intervenir ci yenn ci ay émissions d'information war ñu sax nag di joxe idées ya nga xam ne loolu dafay wane ñoom dañoo daal di far wala journaliste di présentateur wala animateur wala collaborateur d'antenne ñooñu dañoo daal di war a def ay présentation yu honnête impartiale ak li nga xam ne nag moo di objectif des questions ak di sujets traité ba tax rek mu ne bile rajo ak télévision boobee nag di Sen TV waruñu ko utiliser ngir def rek promotion bi ki nga xam ne nag moo di Bougane Gueye Dany ba tax ca loolee nag waa sénéral di attirer latation bu groupe des médias boobu ci obligation yi nga xam ne nag am nañ ko ngir war a respecter yooyu les règlement nga xam ne nag daan nañ ko fi teg suñu respecté wul yooyu les observation nga xam ne nag daan nañ koy def ba mu daan di jagleel ab courrier boobulee Sen TV wala sax Zik FM nag ay sanction dina daal di tegee ci seen ndodd mën nañ daal dem ba daal di tëj boobule télé muy Sen TV wala sax rajo bi di Zik FM ak lu ci mënti am mbokk yi nañ leen topp xibaar bi fii ci Dakar Buzz. Sénégal say facture mu ci gën gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor